أشد وكفياني لافات هدني عني سيداني يا جليل ومسكني وكلما أحول يا الله يا عفيز يا ذا الأمر يا فايق الخلق من بالقريب نفسي وديني لك ونيات الأبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيما النسر في رزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعاله من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقاربي في ديني أو في ديني ولا جانبي فليكن إسنا ودهبا يا زمد تولني ولا تكيني للأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي مسن الختام هندك وتصريفي صلاة الإصابة أنا لي وبلي الإجابة بيتهم ورنا سنت سرين saaliw mbàkke mooma yéem lu jant bi tiim sant sëriñ saaliw doona yoonen ba moo di seex ahmadu bamba ku sopp sëriñ saaliw ana soppey sëriñ saaliw borom xel Serigne Saliou doomi Seex Bamba sant ko war na Serigne Saliou du maasum kuy lamb poosam joxe ay liggéeyam ana soppey Serigne Saliou ku weddi laajal ña daa dem ca moom di ku yegg am njël màggal leen Serigne Saliou Mbacké jóg leen màggal Serigne Saliou weddi laajal ña daa dem ci moom di am njël ku yegg am njël sant len Serigne Saliou tabas lu xar rëy rëy Serigne Saliou Mbacké jox ko ñuy ana soppe yi sëriñ Saaliw Mbàkke yow ku lay liggéeyal nun nu koy liggéeyal sëriñ Saaliw ku lay am lépp Mbàkke gaañi jóg leen waaj sukkundikuy maaj man fàllu damay maaj ngir di sant sëriñ Saaliw hawal fa daayilu maalam yaawi ahadun Cheikh Mouhamadoul Fadilou alaaji fallu mbakke xawal fadaayilu maalam yaw yaa doon ku dem ca moom xam ni kii mooy saayibul kumala ana soppey baay sëriñ Abo Mbàkke ku dem ca moom xam ni ki mooy saay bul kumala sëñ Fallu mooy fadlun azimun sërifun farisun fasilun Mbàkke ak musoobe ki mooy njiit te mooy wasila lor dem na xéewal yi baawaan te dootu jeex abadan ku sopp Seex Fallu ku sopp Alaaji Fallilu màggal leen bàyyi sëriñ Moodu Buso